bi nee na dégg na la ci ànd na ceeg yow mm-hmm. mm-hmm. neena na lim bëggoon lépp defal ngeen ko ko déglu rekk déglu tuuti rek ngir yàlla neena nag mu dellu bëgg ñu gën a nekk ci sëriñ bi rekk nee na nekk ci sëriñ bi mooy nekk ci sunu boroom na ko sunu boroom bëggee nee na amu ci lenn lu ci jublu woon lu dul sàmmal ko rek nee na sàmm gi nag nee na am nanu Cheikh Ibra Fall ginnaaw am nanu Cheikh Ibra Fall nee na sàmm gi dana yomb sàmm gi rek mooy sunu yitte ginnaaw sunu boroom moo waxal ni nu moo nu bind waaye bindiwunu dara lu dul ñu jaamu ko nee na jaamu ko rek kon moom lañu fi indee moom lañu fi bàyyi itam nee na sëriñ bi moom nekkaloon ko ca loola ba wuy ji ko bàyyi ñu fi ñu nekkal ko ci ñun nee na kon nag dafa am loo xam ni neena na yitte ju rëy la muy liggéey bu rëy bu nu fi sëriñ bi bàyyee bum ñu fi bàyyil nee na loolu dong moo waral woote bi nee léeg-léeg dañuy wax sax ni dellu ci suñ boroom nee na waaye kàddu googu nee na mën naa ñàkk waruñu jug ci suñ boroom ba di ca dellu nee na loolu rekk mooy woote bii nee na woote bi moo yëkkati baatu sunu boroom bi rek nee na nag loolu dara mënul ci jiitu baat bii muy sikkurullahi kon nee na alhamdulillahi rabbil alamina ban ñu ko wonee nee na ca jafewul ñu war caa nekk nee na alhamdulillahi rabbil alamina seex Cheikh won nañu yoon wa nee na dénk nañu wan nañu yoon wi nee na kon nag yoon waa ngi noon yii rek sax dàkk ci bàyyee sa bopp ak sa boroom bàyyee ko sa lépp di ko jaamu sa kem kartan di liggéeyal sëriñ bi it sa kem kartan nee loolu rek mooy sunu dono nan ci nekk rek lépp lu réeri réeri sunu bopp du tee sunum xel mën a dal sunu njortu it gën a mën a rafet sunu yitte it gën di dolleeku nee loolu rekk la nee na mënut a ñàkk dolli kàddu yi Cheikh Mouhamadou Fadal yi waaye jëru woon dolli dara ndax sëñ Fallu bàyyi woo ci dara nee dégg na ko ànd na ca yow jërëjëf Mbàkke nee lépp lépp da koy delloo sëriñ bi rek. ndax alhamdulilahi rabbil alamina mënuñoo sant sëriñ bi nee lan ko mën a sant daal xëy na moo ñu nekkal ko rek nee loolu rek ci leen ko mën a sante nee na kon suñu yitte yëpp la ñuy war a xëntoo waxtu wu nekk gën koo jox su lépp te gën a bayliku rekk te nekk foofa nag sax fa dàkk neen lool rekk mooy kàddu yi nee loolu lay dollu ci kàddu yi sëriñ Fallou Fall yi nee na kàddu yi sëriñ Fallou lii doyoon na sëkk nee liñ ci bata wax lépp wax nga ko nee liñ bëgg it wax nga ko nee na moom mii teew nekk fi sunu wet nee na ni ko déggee nee na sëriñ tubaa moo ko gën a dégg laa ilaha illallah hmm. nee na kon na xel dal bu baax a baax nee na mi ngi yeesal ak cant nag lii nee na mënuñu koo melal ba def cant gi ci war li waral bisub tey bii ak nii ñu ko defee ba ci jotaay bii nee na loolu rëy na rëyaay boo xam ni nee du lu ñu mën a sant nee na xanaa alhamdulilahi dellowaat cant gi ci suñu borom mi nga xam ni mooy def ak a dindi ci biir loolu nag mu boole ñëw Serigne Touba Serigne Touba féete ñu fépp lu mat a fàggu fàggu na ko te jubóo na ci ak boroomam. lu mat a ñaan ñaanal nañu ko te boromam nangul nag ko kon wax yi sëñ Fallou Fall ji yépp nee na nam mele suñu borom bi jiitu na sa wax ci sëñ Fallou kon nee jërë ngeen jëf nee loolu rekk la waaw nee mi ngi sant ba baax a baax a baax waaw nee na taxawaay bi mi ngi ciy sant ba baax a baax nag nee lu rëy rëy ci moom la nee na tawféex ju rëy rëy la ci moom nee lu sedd xolam la lu dal am xelam la lu dolli yaakaaram la neen loolu rek la deme de nee jërë ngeen jëf nee na mi ngi del nag sant kilifa yi toog ba baax a baax nee na ak bokki taalibeem yi ah nee ñin àndal ñoom nee mi ngi leen sant bu baax a baax nee na ba tege na ci li ngeen def lépp xelit daj na ko xol yëg na ko nee jërë ngeen jëf hmm. waaw na ñëpp taala seen loxo na ñëpp taala seen loxo te wax amin sëriñ baa ngi ñaan amin mbàkke amin allahuma amin amin mbàkke amin mbàkke amin ñu ñëpp raayoo Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké yàlla fi gën a yàgg te ko wér na ko ñëpp wax